te da nga koy teg ba mu dëgër du yënguwaat lool. oh oh oh oh. ah c'est bon. oh c'est bon. c'est bon. waaw. kala kala àndal kii xaw ma. maa ngi nii. nga la tudd moom.

gisuma xaw ma sax ko ñu fekk xale yi léegi ci gàpp yëpp maa ngi non kii mooy dem kaw la waaw Oh, oh. waaye bu fekkee man fekkewu ma dara Bye, just a minute, just a minute.